سنجتاي ويس موي بروم سبحانه وتعالى دوخ بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم walladina maanaam ñooñu nga xam ne dañoo jokk ci borom subhanahu wa ta'ala melowoo melo njum ak cellate te ñoom ñooy dañ ci gàkk-gàkk yu bari ci yi nga xamante ne ñoom ñooy dal doomu aadama yi ñooy hum ñoom ñooy ñi nga xam ne li furuujihim seen pëy yi xaafisuuna dañ koy wattu dañ koy aar illaa ndere ala azwaajihim ci seen soxna yi ak borom kër yi ak wala boog ci ñoom maa la nga xam ne malakat mom noko ko malakat yilif na ko ay maanhum seen ndeyjoor seen loxo yi fa innahum ndax li wér bu wóor mooy ñoom bu ghayru malumiina duñu nekk ñoo xamante ne ñu ñu ŋàññ waaye fa man képp koo xamante nag ibtaga sàkku na waraa zalika ginnaaw loolee fa ulaa'ika yooyu la gaay day hum ñoom dëgg dëgg al'aaduna ñooy wayjalkat yi ay eh, gisoon nañ li nga xam ne moom moo aju ci gi wa ba ñëw ci li nga xamante ne tàmbali woon ci li nga xamante ne ñoom ñooy jàngat yi kon bokk na li ñuy jàngee suñu aaya yi ba tey moom mooy borom subhaanahu wa maanaam dafa lëkkale cellate ak sori lépp loo xamante ne ak ñaawteef la boo xam ne ci wàllu pëy la aju moo xam ci jëf moo xam ci wax waaye tam moo xam eh, ci doxalin comme ni nga xam ne noonu la ko gisee ci njotaay bi weesu eh, njaaloo yi du benn xeetu njaaloo kese moom moo am waaye tamit lépp loo xamante ne dafa aju ci pëy ci wax ci maanaam waxin wi sax oh, wala ñaawam maanaam képp koo xamante wax ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu boobu mooy wàllu awra yi eh, du tànn baat yi muy jëfandikoo wax wax yu rafet wax waxin wu leer loolu day tegtale ak ñaawteef bu nekk ci xolam am na nag ñoo xamante ne ñoom nu leen neex lañuy ñuy waxe lu leen neex la ñuy wax euh, daal koy euh, daal di ne ndax kersa amul ci diine te borom subhaanahu wa taala fii dafa wax ne xaafisum la dañuy wattu maanaam ñoom dañuy wattu lépp loo xamante ne rek dafa aju ci wàllu pëy dañ ciy sàmm dañ ci sàmmonte te sàmmonte googu nag ak sàmm googu warut rek yem ci seen pëy gi kese kese kese waaye lépp loo xam ne da ci wër-wër loo da caa bokk kon boobaa moo tax ñu koy mën a jàngatee ci suñu aaya la dem ndax borom subhaanahu wa ta'ala donte buur yàlla subhaanahu wa ta'ala duy eh, am kersa ci dëgg maanaam loolu li muy tekki mooy suy wax li muy wax amul lenn lu mu ciy seet bu fekkente ne dëgg dafa taxaw moom borom subhaanahu wa ta'aala moom ala kulli xaalin day wax dëgg wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil comme ni ko waxe buur yàlla moom mooy day moom mooy day wax dëgg te li nga xamante ne moom mooy moom jindi li nga xamante ne ci yoon bi waaye loolu tegtalewul ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ak lépp loo xam ne dafa aju ci diine naan diine moom amul amul amul kersa li nga xamante ne moom moo koy tegtale mooy xadis bi ñuy tegtalooyee xatta xadis boobu boo ko xoolee da nga gis ne kersa daf ci am bu xoolal sayyidat Ummu Sulaym radiyallahu tabaraka wa taala anha ci bu nekk ci saxiix yi dafa ñëw ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nga gis ne dafa jiital wax jooju naka buur yàlla subhaanahu wa taala du kersowoo ci dëgg maanaam du kersowoo ci dëgg kon loolu li muy teg li muy teg la wax naa la ko léegi mu ne mu tekki waaye xoolal dafa jiital loolu ngir wax ne li may laaj ni sax dafa fekk ne damaa war a xam sama diini moo tax ma laajee ko laaj nii mu ne ko hal mal hal al ndax jigéen dana am benn càngaay bu ko war su fekkente ne dafa gént maanaam dafa gént di jote ak borom këram. Eh, loolu ndax bu yeewoo cangaayal farata daf ko ci war yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko laa illa idha ra'atil ma ci beneen riwaaya mu ne innamal ma minal ma mu ne déedéet mbete xanaa xanaa bu fekkente ne dafa gis ndox maanaam dafa jén bi mu yeewoo mu gis ne am na ndox mu génnee ci moom loolu moom mooy waral ak cangaayam te mu ne innamal maa'u minal maa' maanaam ndox cangaay day ndox boobu di génnee ci nit moo koy waral maanaam ci bu jotee ak borom këram wala jote jotee soxnaam moo koy waral wala boog bu géntee ba maanaam bu géntee di jotee ak borom këram wala soxnaam eh, ndax ñaare maanaam gént jote keneen bu bokk ak sa soxna wala ku sa borom kër loolu ci seytaane lay jógee waaye tamit léeg-léeg bu fekkente nit ki dafa am borom kër euh, wala mu am soxna mu ko maanaam bu ko amagul bu nekkee célibataire moom loolu mën na bañ a tekki loolu mais bu dee du célibataire muy gént di jotee ak yeneen keneen ku bokk ak soxnaam wala ku bokk ak ñaare day fekk ne am rab bu koy def loolu euh, lu mat a bàyyi xel la wala boog en tout cas seytaane moo koy fooy en tout cas période boobu bu ko rab bi manul tamit seytaane mi koy fooy jamono jooju kon. Euh, léegi mu ne euh, gént bu fekkente ne nit ki daf ko def kon euh, mu ne ndox ndox mii génnee ci nit ki loolu moom moo ko waral xoolal ma xadis bi te pourtant xadis boobu la ñi ñaaw làmmiñ di jëfandikoo seen làmmiñ mu leen neex bu ñu ñu naan non kersa moom diine bu ñuy wax ci affaire diine du amul sa yooyu lii mooy seen dalil mooy seen tegtal waaye te xoolal xadis bi ni mu demee est-ce que lii ñu wax leeru li ñu wax leer na ànd loolu ni ko waxee rafet. amul kenn tey koo xamante ne danaan mënta euh, dégg lii ñu wax ni ak doomam waaw parce que xam nga man sama doom moo nekk sama wet wala sama papa laa toogal wala sama yaay laa toogal non vraiment wax ji moom voilà déedéet alors que am na ñoo xamante ne ci tuuru ne diine la ñuy waxal da gis ni ñuy waxee euh, daanaka gis nga day jëm ci wàllu boobu. da da nga da nga koy dégg yow sa bopp da lay choqué mais da lay leer ne tey heureusement que yow rek yaa ko dégg wala boog bi nga koy dégg sa ay moroom nga nekkal ñoo xamante ne moom yeneen te ngeen wala yu mel noonu mais bu doon ne kaa dégg fekk sa wéyjur nekk sa wala sa doom nekk sa vraiment di nga am jan bu rëy rëy te kon loolu loolu moom du diine te amul benn xadis amul lenn loo xamante ne lu dul eh, ne buy ñëw da ngay gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi koy jàngalee saxaaba yi radiyallahu anhum tamit noonu la comme ni soxna Aisha wax radiyallahu anha ndaw si ñëwoon ni yeneen bi sallallahu euh, bu ma gisee mbërëk naka laay def mu ko da ngay jël euh, morceau mu ne ko tatahari maanaam nga laablu ngal nga setlu mu ne ko naka gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne daf ko war a jàngal terewul terewul ne leeral bi mu koy wax Euh, dafa jëfandikoo baat yi nga xamante ne ñooy baat yi gën a sell baat yi gën a laab te itam loolu moom mooy waxinu alquran alquran soo ko xoolee day wax wa baashiruhunna jonjonte leen ak ñoom fekk li moom mooy sëy leen jote leen ak seen soxna yi waaye baashiruhunna lay wax mooy béggalante leen jonjonte leen béggalante leen noonu lay waxee euh, te euh, moo tax kinaaya boobu noonu bi naan. comme masalan li sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mooy aaya bu naan maalam tamassuhunna maanaam féeg laaloo leen soxna yi maanaam jotewoo leen ak ñoom te bu boobaa da ngay gis ne jëfandikoo baat boobu loolu la teg loolu la wax te xataa bi may wax ci wàllu cangaay a li koy waral daf ne aw laamastumu nisaa wala boog ngeen laalante ngeen jonjante ak soxna yi ngeen jonjante ak soxna yi te da gis baat boobu ñu nga xam ne moom lañ jëfandikoo Euh, amul lenn luñ ciy wax lu loolu ne dinañ comprendre que ni lii lay lii lay tekki euh, jote kooku ñuy wax maanaam loolu moom moo tax alquran ci boppam day jëfandikoo kinaaya di wax maanaam day jëfandikoo waxin wu rafet euh, di jëfandikoo ay baat yoo xamante ne du jaar ci bi carrément mais day wax rek li nga xamante ne moom mooy waxin wi gën a rafet waxin wi gën a sell te loolu tamit moom mooy yëfi nit ku Euh, te euh, kon dafa am tamit loo xamante ne ci biir loolu lu mat xel la mooy képp koo xamante ne boo seetloo ci ay waxinam ci ay doxalinam euh, surtout ci ni muy waxee foo ko fekk mi ngi wax ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu lu ñaaw ci diggante góor a jigéen ñi ba xattaa buy tuumaal ay nit sax li mu leen di tuumaale moom mooy ay njaaloo lañ dañuy jaaloo dañuy def lii góor jigéen lañ dañ def lii dañoo mel nii dañoo maanaam ci yooyu rek rek rek rek boo ko seet loolu li loolu tuuma yu bari bari yu muy teg ci nit ñi loolu la loolu day teg ci ne kooku seytaane mën na ko te yamul ci ne seytaane daf ko man mais day wane ni moom dafa am benn rab maanaam seytaane boo xam ne day koy jëfandikoo di wax ci làmmiñam loolu moom moo tax nga gis waxam expression bi lu ci bëri ay ay diw day jaaloo diñu jaaloo nag diñu nangam bi diw kii ci loo xamante ne fekkewu ko dara leeru ko ci dara comme niñ ko gisi woon borom subhaanahu wa taala ñiy wax loolu dafay fajliduuhum samaaniina jalla wala taqbalu lahum shahaadatan abadan wa ulaa'ika humul faasiquun bu leen na ngeen leen dumoo quatre-vingts coups te ñooñu noonu bu leen leen leen nangooti li ñooñu seen seede seen témoignage lu ñu la seedee tel ko nangooti parce que ñooñu ay kàccoor la ñooñu ñooy dëgg dëgg kàccoor yu euh, mag kon Euh, loolu euh, ndax ndax lan ndax seytaane da leen a mën seytaane da leen a mën moo tax euh, ñuy seedeel ay njaaloo ay nit ñoo xamante ne wax dëgg yàlla musuñu leen a gis sax parfois xamuñu leen xamuñ ci ñoom dara voilà rawatina ne day fekk ne ci mandarga yi amul lenn luy wane ni kooku day njaaloo allahuma ba mu des ni kooku mu seedeel suñu aay bokk na ci li ñuy jàngatee ci suñu aay yi moom mooy kon xaraam bi njaaloo xaraam waaye tamit xaraam bi alliwaat xaraam mooy nguur jigéen lu tax ndax lim ne illa ala azwajihi lu dul xanaa maanaam ci seen soxna yi aw ma malakat aymanuhum wala bo e, jigéen ñi nga xamante ne ay ay taara lañ yoo xamante ne seen e, e, seen seen loxo yi moo ko maanaam seen ndeyjoor yi moo ko gis ah, loolu dañ ci xamee ni eh, non seulement njaaloo daf xaraam te comme ni ko ñenn ñi yaakaare man maanaam léeg-léeg da ngay da wu ban société lañ ne ak lan moom moo tax nit ñi di xalaateen ñenn ñi eh, loo xamante ne sax xel du ko mës a xalaat wallahi loolu boo déggutoon nit

yàlla na yàlla sàmm maanaam bu dee du soxlay kenn garaawul quoi loolu tuddul njaaloo euh, léeg-léeg tamit nga gis euh, ñoo xamante ne maanaam dañ ko woyofal dañoo woyofal mbir mi ci anam koo xamante ne da wu mais voilà ñi ban àdduna lañ ne en fait yal nañ yàlla sàmm euh, mais ak lu mënti maanaam mooy mbir mi maa daama ne du sa soxna rek loolu jaadu ko tudd waaye tamit euh, comme que sa soxna moom maanaam soxna si comme que ziwaaj mooy tollanti googu kooku ki nga wuuteel ni leen maanaam bind cër bi leen borom subhaanahu bindal moom mooy awra yi kooku nga nga nga mën a maanaam moom nga mën a takk soxna ci kaw loolu kon lépp loo xamante ne dañ koy wax muy wàllu góor jigéen ak seeni doxalin ak nu mbir mi mënti wër-wër loo mooy xam góor jigéen wala jigéen góor. ak yu mel noonu yooyu yëpp sikk nekkul ci ne dafa nekk loo xamante ne dafa xaram te ñoom ñii euh, borom subhaanahu wa daf leen am tur bu mu leen tuddee moom mooy xeetu njaaloo ak leneen li nga xamante ne moom mooy lépp lu jëm ci wàllu sëyte ba pare nekk loo xam ne euh, nekkul ci cadre sa soxna wala boog sa taara euh, loolu dafa xaram te borom subhaanahu wa la ko tuddee faaxisha xoolal aaya bi borom subhaanahu wa bi muy wax ci njaaloo daf ne wala taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wa saa'a sabila bu leen jege njaaloo ndax njaaloo dafa nekk loo xamante ne faaxisha la njombuteef la te yoon wu ñaawa ñaawa ñaaw lay jëme nit ñi yoon wu ñaaw nag ba muy jëme nit ñi bokkut ak yoon wi nga xam ne mooy yoonu yàlla kon képp koo xam ne njaalookat nga na leer ni teggi nga sa yoon ci yoonu yàlla yaa ngi ci yoonu ñaw yaa ngi ci yoonu seytaane te xoolal tamit ni nga xamante ne noonu lay waxee ci eh, nit ki am na degré njaaloo yi tolloowul nit ki nga xamante ne eh, dafa dem takk ki nga xamante ne moom la baayam takkoon wala boog mu jote ak jaam bi nga xamante ne mooy taara bi nga xamante ne moom la baayam musoon a joteel lolu xaram gi mu borom subhanahu wa taala yamul ci ne fële faaxisha wa sa sabila la wax fi nak dafa ni wala tankihu maa nakaxa aabaakum illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa sabila manam ngi gis ne yok na ci wa maqatan bu len sëy ak kep ko xamantene sen bàyyi dañ ko muso na sëy ak mom ndax lolu de fahisha moy muy njumbuteef wa maqtan ba pare merum yàlla bu rëy rëy la wa saa sabila te yoon wu ñaawa ñaawa ñaaw la jëm yoon wu ñaawa ñaaw la kon loolu day e, tegtale ne lépp lu jëm ci wàllu boobu rek bu fekkente ne jaarul yoon rek loolu faaxisa lañ ko tudde borom subhaanahu wa taala mi ngi nettali yent yàlla Luut alayhi salaatu wassalaam من ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فاتلكل ينتي الله لوط عليه الصلاة والسلام بموحي و ندبو نيتام بن آية بي دافني آية أتأتون مو نيك لاج بنن آية بي دافني إنكم لتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون يين دي يين نغي ديكيلو نياوتي يين نغي غيس بو باخا باخا innakum la ta'tuuna ar-rijaala shahwatan min duuni nisaa benn aaya mu ne bal antum qawmun tajhaluun beneen bi eh, mu ne eh, eh, mu ne yéen di da ay jigéen maanaam fee mu ne da ngeen di dikkee ñaawteef goo xamante ne kenn mësu koo dikkee ci mboole mbindeef yi yàlla bind kenn musta mel noonu yéen yéen a gën a bon ci nit ñi parce que lii ngeen di def yéen dangeen di jël jigéen ñi ngeen nekk ay góor ngeen bàyyi leen fi ngeen dikk dem ci jigéen ñi di njaaloo ak ñoom maanaam dem ci góor ñi bopp di njaaloo ak ñoom mooy def yi fi góor jigéen maanaam ndax dafa boole ñaar dafa boole nekk def di njaaloo ba pare boole def ko ci anam goo xamante ne borom maanaam borom subhaanahu bi muy bind góor góor taxu ko bi muy bind jigéen jigéen taxu ko maanaam kon mu nekk beneen beneen beneen mbir mooy soppi ni borom subhaanahu wa ta'aala tëralee adduna bi ni borom subhaanahu wa mbir euh, mu ne yéen dangeen a nekk ñoo xam ne ay tooñkat ngeen voilà feneen mu ne leen atazaruuna maa xalaqa lakum rabbukum min azwaajikum atu atatu atu atatuuna zukraana min al aalamiina wa tadharuuna maa xalaqa lakum rabbukum min azwaajikum bal antum qawmun aaduun yéen te loolu moo tax suñu aaya bi mooy aaya yi ñu nekk ni daf koy day day day day dellu si ci aaya bi parce que aaya bi dafa ne képp ku def loolu képp daf ne fa ulaa'ika humul aaduuna aaduuna mooy ñi jalgati fii yent yàlla Luut alayhi salaatu wassalaam daan ne yéen da ngeen a jalgati te lii wane ne dangeen ngeen a jalgati moom mooy lan mooy yéen xanaa maanaam da di dikkee mais lan moo leen dal ba ngeen di dikkee tatuna zukraana min al alamin góor ñi nga xam ne mooy seen sexe masculin yéen ngeen di dikkee ci ci nit ñi wa tadharuna ma khalaqa lakum bàyyi fi ñi nga xam ne moom la leen fi borom subhaanahu wa bindal te ñu mën leen noonu tollal bi te mooy jigéen ñi seen soxla yi kon yéen Eh, bal antum qawmun aaduna da ngeen a jalgati lii moom mooy eh, kon eh, tegtale ne kon suñu aaya bi tamit dafa waxtaan dafa waxaale góor jigéen te loolu borom subhaanahu wa ta'aala kon faaxisa la ko tuddee faaxisa mooy njombu def gu rëy am na nag ñoo xamante ne ci suñu jamono dañuy waane waaneelu ak a muus muuslu di wax ne non ñoom dañoo nekkoon di yàq moo tax mu ne leen mufsiduna ngeen dañu di yàq euh, ne comme ne innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min sa nisa na ta'tuna ar-rijala min al wa taqta'una as-sabila wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul mu ñu ne lool moom moo tax bal antum qawmun tajhaluun wala wala loolu moom moo tax mais yéen li ngeen di def moom mooy euh, da di euh, maanaam li mu leen di reprocher moom mooy da ngeen di rek euh, ñëwee di ñëw ci da ngeen def yëfi góor jigéen mais loolu melal la rek tegtalewul ne daf cee teg lu xaraam wala bokk ngeen di dikkee ñi nga xamante ne. ñoom ñooy maanaam ngeen di dog nit ñi ci seen yoon yi mooy da ngeen di addu kalpe mooy jikko yu bon yooyu la ñuy mooy addu kalpe ba pare yemoo leen ci di addu kalpe eh, waaye seen dëkk yi seen seen seen da ngeen di woote wu mboolem loo xam ne léegi ñaw def na ñu ne nag kon amuñu rapport quoi ak góor jigéen li ñu leen buggale du lool et puis li ñu leen buggale dëgg-dëgg sax moom mooy ne bi malaaka yi ñëwee ñu ñëw bëgg ko bëgg leen a loolu lañ leen bëggale maanaam eh, bi mu naan haula dayfi fala taflahun ñii samay gan lañ bu leen leen gàcceel parce que biñu ñëwee ngir war leen ne dañ leen di alal ñoom nag ñu daal di ñëw ne eh, ay góor ngi fi ay góor ñëw nañ ay góor ñu rafet lañ sax macha allah parce que ay malaaka ñoom xamuñu woon ne ay malaaka lañ ñu ñëw nag voilà léegi yent yàlla Luut alayhi salaam ne leen ah haula eh, banaat yi voilà na hunna atharu ko samay doom yu jigéen ñaa ngi nii mun naa leen leen may de ñoom ñoo gën a sell ci laab ci yéen ñoom ñu ne déedéet bu fonto innaka la ta'lamu yaa gën a xam liñ bëgg mooy ne sa gan yii moo ñu soxal ñu ne attaque boobu agression boobu agression sexuelle boobu ak yu mel noonu loolu moom moo tax euh, ñu alal leen loolu muy jëm ni waxu caaxaan maanaam ku bëgg a layalee loolu ne kon góor jigéen xaraamul kiiwul garaawul nangam nangam taxul ñu alal kenn loolu du dëgg parce que liy wane ne du dëgg mooy aay yi benn bu ci nekk dañoo leer ci ne yii wax yëpp dañoo leer ci ne jëmm bi liñ leen di reprocher mooy ñu la fekk ñu nekk góor jigéen yi ci des ay conséquences yu nekk góor jigéen lañ effectivement ak góor jigéen góor jigéen fu ñu amee doole wala ñu am kàttan ci ab dëkk ci ab réew ci ab société ndànk-ndànk dinañ dem. ndànk-ndànk ba dootuñu yamati ci seen bopp ci seen biir di làqatu waaye bu ñu amee doole dañuy génn fës ba pare dañuy sàkku sax ñi nga xamante ne duñ ko comme nii ñii def te dootuñu yamati foofu muy lépp lu jëm dañuy am esprit d'agression maanaam état d'esprit bi seen état d'esprit ci boppam mentalité bi mooy mentalité wu ay nit day nekk ci ñoom waa lu yëngu ñu dóor gis nga wa ta'tuuna fi naadikumul munkar seen gox yi seen mbooloo yi maanaam ci seen assemblée yi ngeen di ne mbonte rek ngeen fi nekk di jàngale rek ngeen fi def parce que nit ki bu xësee ba nekk ci niveau nekk góor jigéen day daal di mën a dugg ci beneen domaine bu mën a doon ci lu bon loolu buntu la maanaam boulevard la ci loolu loolu bokk na ci gravité bi tax nekk góor jigéen garaw mooy du ñu yem ci nekk seen biir mais dañuy bëgg di sàkku ñeneen parce que en réalité jigéen ku jàpp ne feebar la da juum ndax feebar borom subhaanahu wa ta'aala du ci alak ay nit alors que ñii borom subhaanahu wa ta'aala da parce que tout simplement lan lañ parce que dañoo euh, euh, parce que dañ doon dañ doon dañ doon dañ doon dañu góor jigéen bu fekkoonte ne nekk góor jigéen feebar la bu mën a dal nit képp kenn comme ni nga xamante ne noonu la nguunu gànna nekkee feebar maanaam mooy nit ki juddu am ñaari sexe wala boog léeg-léeg nit ki nekk koo xamante ne dafay efféminé maanaam euh, day xaw a nuru jigéen fekk góor la. bu fekkonte ne su doon ne nekk góor jigéen su doon ne nekk góor jigéen comme yooyu la mel mu nekk feebar kon yàlla du ci alak kenn yàlla du alak kenn ci loolu loolu mooy akbaru dalilin buy wanee lu du feebar mais perversité la ak kàccoor la kàccoore la ak mbon la faaxisa la ko borom subhanahu wa ta'ala tudde ci alquran te fu bari la ko ba pare mu tuddé ko tamit mu né bal qawmun aaduna moy né ada odwaan mo ci moy moy mooy gat al i'tida jalgat noonoo bonte mo ci nek te bo xolaté dig dig dig dig dig dig dig goor jigen fan lay faral di euh nga xol profil social wu góor jigéen profil psychologique et social bu góor jigéen mooy doo ko faral di gis ci dëkk yu kaw yu sori yi yu yu yi doo ko fa gis maanaam euh, tey bu doon Sénégal dañ naan Dakar bu koy faral di gën a gis wala boog dëkk taax yi mais du nekk par exemple ci dëkk yi nga xamante ne ay dëkku àll lañ loolu ñaare doo ko fa gis doo ko faral di gis ci dëkk àll yi te doo ko gis tamit. ci dëkk yi nga xamante ne maanaam ci nit ñi nga xamante ne su maanaam même ci dëkk àll yi sax classe sociale bi ngay gis ñu koy yore mooy ñi borom alal yi borom am-am yi wala buñ dul borom alal dañoo ñàkk waaye dañoo ñàkk ba pare yor jikko yi caay-caay maanaam mooy da nga leen di gis ñu bëgg luxe bëgg nekk nit ñoo xamante ne xool ko rek profil psychologique bu jigéen ñëpp seet ko seetlu ko du génn nii nit lay doon koo xamante ne. day euh, faral di essayer lu bari maanaam koo xamante ne day tàmm masalan di njaaloo wala ak kàccoore nekk ci moom ci xolam kàccoore nekk ci xolam muy bëgg relation maanaam di tàppante ak jigéen ñi lu bari ak di njaaloo ak ñoom wala yu mel noonu bu dee jigéen boo xamante ne eh, voilà day day day day day bëgg day naw boppam fonk boppam maanaam réyal boppam lool lool lool ba nga xamante ne day xeeb di ànd ak jigéen ñi war a boog di di ànd ak góor ñi plutôt di di di di jote ak ñoom mais que mu ne moom léegi sax jigéen ñi ko jigéen ñi sax la bëgg léegi maanaam ñooñu yooyu na ngay gis seen profil li ma bëgg a wax foofu mooy euh, lu ci ëpp ci góor jigéen ñi tey boo leen jëlee à titre indicatif nii rek quatre-vingt-dix pour cent maanaam juróom fukki góor jigéen yoo gis juróom-ñeent ñi dañoo ñekk ñoo xam ne dañoo wër adduna bi ba toog maanaam dañoo njaaloo wa njaaloo wa njaaloo léegi nag essayé nañ essayé nañ essayé essayé essayé façon jigéen ñu bare bare bare bare léegi ñu doon nañ ne léegi nañ dem ci góor ñi loolu moo leen def ay góor jigéen moo tax gis dañuy sax am ay soxna mais nekk ay góor jigéen euh, moo tax yent yàlla Luut alayhi salaatu wassalaam bi mu leen di wax naan atatuuna zukraana mina al-aalamiina daf ni wa tadharuuna maa xalaqa lakum rabbukum min azwaajikum maanaam ngeen ba da ngeen di ñëwee ci ci góor ñi mais da ngeen fee bàyyi jigéen ñi nga xam ne seen ay soxna lañ te borom bi bind leen pour ñi pour yéen mais ñoom ñu bàyyi ko fi ñu bàyyi leen daal di dem nag ci ci ci ci ci ay góor ne ñoom wala boog euh, dinañ di joteeg seen soxna yi mais dinañ joteeg joteeg seen moromu góor ñi maanaam en même temps dañuy mën a boole ñaar yëpp parce que tout simplement dañoo bëgg loolu bëgg nag mbon googu ñu nekkee. ba pare mu fis ba pare am doole foo leen fekk ci loolu la ñu nekk propagande boobu ci la ñuy nekk danañu xeex ba am seeni ak ci société bañ nangul leen ko ba pare ñu wëlbatiku nag buñ paree ci lool dañuy wëlbatiku nag képp koo xamante ne du góor jigéen ni ñoom dañ leen dañ leen di dañ dañ dañuy dem nag ne ne nañ la xatal ci dëkk bi yow waroo fi am kàddu nekkoo góor jigéen comme ñun moo tax ay étape la bu ma kenn xas na ma ñëpp bàyyi samay droit loolu benn étape kese la ñaareelu étape moom mooy eh, léegi yéen lu tax meloo leen ni ñun xoolal li nga xam ne moom la alquran wax xam nga dañ naan wax axriju ala luutum min qaryatikum innahum unaasun yatatahharuna alquran nee na ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy nitu yent yàlla luuti alayhi salaatu wassalaam nga xam ne ñoom la daf da ñoom dañ doon wax naan axriju ala luutin min qaryatikum génne leen waa kër yent yàlla Luut yi alayhi seen dëkk bi xam nga lu tax du ne dañoo def lu ñaaw dañoo def lu bon dañoo def lu xam nga lan mooy seen bàkkaar bi ñu def ba tax ñu ne nañ leen génne dëkk bi dañ leen fi xatal ba ñu génn ndax innahum ndax ñoom unaasun ay nit lañ yoo xam ne nee na ñooy yatataharuna dañuy jéem a sell dañuy jéem a baax dañuy jéem a laal foofu la góor jigéen bi képp nag koo xamante ne xeeb nga ko te doyadal nga ko te woyofal nga ko xamuloo li nga xeeb xamuloo li nga doyadal xamuloo li nga woyofal loolu moom mooy rek ne serait-ce que tey nit ku nekk samay ku ne sama yoon nekku ci non moom loolu la bëgg ne nañ ko bàyyi mu def li mu bëgg après yow la ñuy attaqué yow dootoo amat dootoo def yow li nga bëgg beneen mbir mi moom mooy euh, ngóor jigéen bokk na ci li muy yàq mooy an nas la mooy askan njuur comme njaaloo njaaloo day jaxase ay askan yu bokkul nit ki ñu boole ko ci askan boo xam ne xaqiiqatan moom bokku ci ñu tuddi ne ni sawaay la ndekete du waa askanu diw la ndekete du moom heure euh, ndono jot donnu jot muy ñëw di xëccoo ak ñoo xam ne moom bokkul ci alal li rek muy ñëw di xëccoo ñoom alal yi nga xamante ne moom la seen bàyyi bàyyi wala seen way jur ñu fi bàyyi ainsi de suite te moom bokkul ci askan wa yooyu yëpp njaaloo daf mais góor jigéen ñu gën a gaaw encore parce que jëm nit ci boppam maanaam meññeef bi ñu nit ci kaw suuf moom lay moom lay remettre en cause moom lay compromettre ay nit ñoo xamante ne dañuy juddu ci ay ndey ak ay baay ba pare jud di màgg ci société bu normal parce que tamit nañ waxante dëgg képp koo xamante ne. Euh, euh, euh, Eh, démb rek man dafa am mbokk yu eh, ma toogalal ndeysaan bi ciy waxtaan bon ñoom moom moom ci boppam ñoo ñëw bon ñoo ci doon parce que dafa am cadre bu mooy mais seen eh, waajur yi dañoo teel a tàqali ko fekk am sëy buñ doon takk ñu muy expliquer que maanaam ki dee ki doon maye ak ki ñuy may ñoom ñaar ñoo xaw nuroo cas de figure moo tax ki doon maye am hésité wul sax pour may ko jabar hésité dara parce que xam na moom li mu dund moom kon kii mu loolu la dund mu ne ko soo baaxee bëgg naa la soo bonee bëgg naa la parce que lan lañ dund mooy liñ dund mooy euh, euh, seen waajur yi dañoo teel a tàqali ko ñu teel a maanaam toog jamono joo xam ne gisatuñ seen waajur bu góor moom gisuñ seen baay te kooku moom xam na ne moom xam na ne am na baay mais suuf que rek daf ko dul gis mu ngi naan dama doon xëy bi te boobu xale bu ndaw laa de mais dama doon bu ma jullee dama daan ñaan yàlla xale bu ndaw di ñaan yàlla naan yàlla nga may sama yaay jëkkër joo xamante ne day am alal am étage bu mag boo xamante ne sama wetu kër papa lay dëkk bu ko defee étage bi tiim sama ñoom kër papa ñoom su ko defee voilà ba pare mu yor at di romb sama papa tout le temps di ko ñaawal imagine nga euh, kooku le fait rek mu toog ay jamono jamono gisul papa loolu nag mu ko yóbbu ci état boobu sans que mu xam sax problème fan la am ndax maanaam ñoom seen tàqalikoogu lu ko waral amu am amu ci benn élément te pourtant loolu moom moo nekkoon mentalité en tant que xale te société loolu dafa nekk loo xamante ne euh, lu lu leer la ki nga xam ñi nga xamante ne dañoo màgg te màgge wuñ ak seen ñaari waajur yi euh, na bu dee divorce moo ko waral ba pare mu leer leen ni seen baay a ngi fi mais dafa mais gisuñu ko kooku psychologiquement dafay am profil bu muy dégager boo xamante ne dafa am ay mbir yu jafe-jafe yoo xamante ne daf ciy nekk ci ay xalaatam ci ay doxalinam ci ay gis-gisam yoo xamante ne ki dund am bànneexu dund ay wéyjuram màggandoo ak ñoom ñu yar ko teg ko ci yoon kooku du am mukk problème boobu te gis nga euh, problème yooyu noonu problème bi góor jigéen di indi moo ko gën a garaaw maanaam parce que yi dañ naan non pourtant ñoom après dinañ mën a am ay doom pour pourtant nangam ndax kii insémination artificielle yi nangam ay ci loolu déjà dafa xaraam ci wàllu bon en principe après nag am na ay exception bien sûr peut-être ñu ñu soxla ci ñëw euh, xëy na dinañ ci ñëw comme jot nañ ko tudd bu ñu bàyyi noonu rek masala bi noonu de manière globale après dinañ ci ñëw incha allah euh, donte taxu woon mais liñ ci jublu moom mooy. Euh, am na ay mais ci cas de figure boo xamante ne góor jigéen lañ maanaam ci ni mu ni mu mën a demee loolu mënta dagan maanaam amul cas de figure bu mën a daganee ci wàllu boobu que kii dañ koy ëmbal doomam nangam ainsi de suite wut ku leen ko wala yu mel noonu ñu ñëw indi loolu mooy doon jëmmi njaaloo la euh, léegi ñu ñëw euh, am doom moo xam ñaari góor lañ wala jigéen léegi ñu màgg ci société bu mel noonu kooku beneen problème bi muy gën a am moom mooy kat moo ma jur loolu beneen problème la xam nga mooy nit ki xamul sax ki ko jur te xam na ni moom tànnul juddoo nii mais dafa tànn juddoo nee da maanaam mais dañ koo tànnal ni ko yow par force ñi ngay juddoo mu màgg ci société boobu imaginer ki nga xamante ne moom xam na ni am na baay te baayam a ngi nii mais sauf que waajuram yi maanaam nekk ñu woon ci buum ci buumu néegu sëy ci néegu sëy bi ñuy bi bi bi bi bi bi bi moom bi muy kooku rek déjà Eh, kooku imaginer nga kooku psychologie wu maanaam naka la war mel ki nga xamante ne maanaam eh, juddoowul fi mu war juddoo comme ni ñu koy waxee maanaam eh, wéyjuróom wu góor dafa joteeg wéyjuróom wu jigéen ci njaaloo xale boobu noonu est-ce que yéen a ngi imaginer profil psychologique ku xale boobu loolu loolu métti na métti goo xam ne ku mu dalul xamu ko ku mu dalul mënoo ko imaginer mënoo ko xam léegi nag imaginer yamuñu ci loolu mais ñu ne léegi ay góor jigéen lañ imaginer xale boobu ne léegi moom dafa bëgg a yàlla koo xamante ne ay waajuram ay góor jigéen lañ ce qui veut dire que ni juruñu ko dañ ko dugal ci machine mu jub wala yu mel noonu maanaam bien sûr dañ ko dugal ci biiru bu koy koy ci yooyu mais maanaam forme caricaturale la ci ci exprimer gis ngeen profil psychologique bu ñooñu nan la war léegi yéen ngeen ni amul problème quoi loolu yëpp garaawul quoi léegi boo nee non mais de toute façon duñu am doom mu nekk société boo xam ne ay góor jigéen lañ duñu am doom lenn daal laa xam mooy adduna bi yëpp bu nekkoon ay góor jigéen fii téeméeri ak kenn dootu nekk ci kaw suuf loolu moom lu leer lay doon kon euh, góor jigéen moom. amul nuñ mën a wëlbatee mbir mi ba mu dagal yàlla tere nag nga naan léegi maanaam jëmmi sëy ci boppam dañ koy takk dañuy takk sëy ci diggante góor jigéen loolu non seulement euh, day dugg ci euh, taxallul maanaam mooy di jéem a daganal loo xam ne dafa xaraam comme baara yëgoo ni mel baara yëgoo ni mel kon dafa dugg non seulement ci nga nekk góor jigéen ngay def jëfi góor jigéen ba pare ngay continuer di jéem a nax sa bopp ba pare di jéem a force société bi mbir moo xam ne faaxise la njombuteef la bu lu bon la loo xamante ne day yàq askan ba pare day yàq société ci askan te xool ko xoolal bu baax li ma leen di wax nii euh, Luut par exemple Luut ak Aadama ñoo bokk euh, valeur humaine euh, poids mystique ñoo ko bokk Luut yéen ci yàlla Luut alayhi salaam parce que moom li mu doon xeex li mu doon xeex mooy na askan bi mën a taxaw Aadama moom Aadama alayhi salaam ñoom ñëpp 45 ñoom aada 45 lay tolloo loolu junj tuddee li waat mooy di góor jigéen ah loolu day yàq li nga xamante ne moom mooy moom mooy li maam aadama indi woon te moom mooy askanu doomu aadama daf koy yàq daf koy yàq psychologiquement daf koy yàq ci nit nit profil yi day yàq profilu nit ñi fitra yi day yàq ba pare yàq tamit askan ba pare eh, maanaam askan dootul amati askan dootul amati ba pare beneen bi ci des moom mooy day te te te askan ak foyer yi maanaam mooy kër famille moom mooy cosaanu société bu famille yi baaxee société bi baax te yar dëgg-dëgg ci famille yi lay am euh, day yàq tamit li nga xamante ne moom mooy adduna bi ni muy doxee ba pare day yàq euh, jur maanaam le fait nit mën a am exister ba pare day day day yàq organisation sociétale yii yëpp lay yàq yii yëpp lay yàq. boo ci boolee jikko ju ñaaw ji nga xam ne moom la góor jigéen di am daay man ci di bëgg maanaam eh, ci comme te ni ko Alxuraan waxe loolu boo ko ci boolee moom daanaka moom mooy mënatul waxate maanaam maanaam voilà xam xam maanaam doy maanaam yéeme na daal doy na waar voilà amul maanaam amul ay moo yu mën a teg dëgg dëgg dëgg ci melal ñaaw def boobu voilà Euh, kon dangay gis ne kon euh, nekk góor jigéen léegi nag mu am benn affaire bu ñuy leeral foofu parce que sama mbokk wolof yi tamit léeg-léeg dañuy ëppal ci ni ñuy àttee mbir yi nangam dafa xaraam tegtalewul ne nangam euh, ku ko def def nga lu xaraam tegtalewul ne ku ko def yéefér góor jigéen mën na ne jullit loolu mën naa ne nekk jullit ba pare nekk góor jigéen loolu mën naa ne loolu mën naa ne góor jigéen bàkkaar la comme njaaloo nekk njaalookat bàkkaar la naam dañ laa war a rey dañ laa war a dóor ay seer ba nga dee d'ailleurs façon bi ñu la war a tege sax euh, léeg nga dégg ku ne yenent bi sallallahu alayhi moom mësta àtte ni góor jigéen nii la xam nga lu mais parce que lii lañ koy def maanaam musul tëral àtte ci kaw ak góor jigéen mais parce que mais li ko waroon amul woon góor jigéen loolu moo gën a loolu mooy li simple mais acte bi ñi tek góor jigen amna amna te moy nak moy niñ defoon wa keur yent yàlla luuti alayhi salatu wassalam lan lañ leen defoon ngul bu faja alna aliha saafilahaa wa amtarna alayhi hijaratan min fit dañu jël li fete kaw ñu mabal ko ci seen kaw mom dañu yëkkati dañ ko yëkkati fursi wërbeuti wëlbati leen ci bi ba pare tawal leen ay ay ay ay xeer aji njaaloo te sangewu mooy góor bi nga xamante ne dafa am euh, dafa dafa dafa dafa njaaloo góor gi nga xam ne dafa njaaloo wala jigéen ji nga xamante ne dafa njaaloo te fekk mu sangewu comme li alquran illa an yatiina bi faahishatin mubayyina loolu xanaa xanaa euh, mu ne walaa ak euh, euh, euh, bu ñu bu leen leen génn mooy boo fasee sa soxna bul ko génnee ci kër gi loolu xanaa mu dikkee njombu def bu rëy gis nga foofu tam njombu def la ko tudde mooy njaaloo maanaam jigéen joo xamante ne da nga koo fase xam nga day am idda waaye idda boobu moom bu leen leen génn seen këri yi période yooyu bu leen leen génn na ngeen am idda mais ba des benn condition su dee dañuy njaaloo léegi nag gars yi lan la ñuy def séparation de ñëw di dugal góor gu leen neex ci biir kër yi yooyu loolu ku ko def da koy génne voilà da léegi voilà comme que léegi fase nga ma man daal léegi ku ma neex lay ci kër gi déedéet euh, kon euh, yii yëpp ay ay ay ay ay la yoo xamante ne loolu mat a bàyyi xel la ci ci ci mbir mi voilà moo tax nañ def attention bu baax a baax a baax a baax a baax ci masala bi wallu wàllu góor jigéen ak lépp loo xamante ne day wër-wër seen biir la ne voilà kon euh, mooy lan mooy ne mënuñoo wax ne euh, que ni amuñu àtte ci ñoom ah am na àtte àtte bi leer na te loolu borom xooy dëppoo nañ ci ne àtte bi ñu leen di àtte mooy li gën a néew mooy bi ñuy àtte ku amoon soxna ba pare di jaalo wala ku mës a am borom kër di jaalo ku mës a am soxna ba consommé mariage ba pare jaaloo wala ko wala boog jigéen ji ko mësoon am ba pare jaalo mooy lan mooy dañuy door ay xeer ba nga dee loolu mooy li gën a néew ci acte bi day après nag wuute nañ ndax loolu rek lay doon wala euh, dañ lay yékkati ba ci kaw xam te ne fu la ñu bàyyi la nga màbb daanu maanaam ci kàmb ba ñuy sànni xeer ci kàmb gi ba ba kàmb gi tëj wala mel noonu ban lañ ciy def yan lañ ciy def loolu kay la wuute mais ndax ay xeer dana am dóor ba ma dee ba nga dee loolu moom amul lenn lenn lenn lenn loolu mooy acte bu góor jigéen voilà te acte bu mel noonu charia bu ko tëral ci nit koo xamante ne la ci nit koo xamante ne dafa feebar non góor jigéen moom du feebar kooku moom ku ko jàppit nag na ko génne ci xelam mënta nekk feebar parce que feebar mënta nekk loo xamante ne boo xoolee ñi ko nekk mooy ñu ñi am alal ñi riche ñi wala ñi nga xamante ne dañoo nekk dañoo yàgg a euh, fo voilà di gérer di xool lu nekk bu mu gi léegi ñoom ay góor yi jigéen ñi doyatul ñun ñu ne ñoom dañ seet ji góor ñi ba xam wala yu mel noonu maanaam essayé affaire yu bari boo xoolee li fuuf góor jigéen ñi noonu lañ mel voilà wala bu dee ku ñàkk la ku ñàkk la mais yàgg njaaloo wala ku ñàkk la waaye nag Euh, dafa am ay feeb ay jikko yu ñaaw feebaru xol yu nekk ci moom jikko yu ñaaw yu nekk ci moom yoo xamante ne yooyu ñoo ko yóbbu ci muy jalgati àtte yàlla yi mu yëgg ci nekk góor jigéen voilà mais ànd ak loolu yëpp góor jigéen mën naa nekk jullit quand parce que liy génne nit ci ci ci l'islam mooy mu deñ par exemple tey koo xamante ne dafa ne góor jigéen xaraamul maanaam ki nga xam ne nekk na góor jigéen ba pare daal ne mais nag xam naa ne xaraam na damaa nekk góor jigéen mais xam naa ne xaraam la kooku kooku jullit la ba tey mais ki nga xamante ne moom dafa ne non góor jigéen moom dara nekku ci ah daanaka góor jigéen dara nekku mais man du ma góor jigéen te moom du góor jigéen kooku du góor jigéen effectivement mais yéeféer la parce que nekk góor jigéen dafa nekk une évidence lu ñu tuddee maalum mi ne diine di darura dafa nekk lu loru loolu jarul jàng maanaam même ñi jàngul ñi amul xam-xam sax xam nañ ni nekk góor jigéen daa xaram kon yow boo wëlbatikoo nga ni da jéem a défendre loolu di jéem wax ne baax na garaawul non dara nekku ci bu kenn wax dara loolu mooy yow ci sa bopp yow yéeféer nga alors que ki nekk góor jigéen te reconnaître ne bàkkaar la kooku du yéeféer kooku du yéeféer voilà atte biñ koy teg nag moom comme tey rek ku njaaloo wala ku rey nit atte biñ lay teg dañ lay rey xam nga boo boo reyee nit wala nga njaaloo fekk mos nga am mais dañ lay rey mais rey googu noonu rey ñu la parce que yéefar nga dañ lay rey parce que xadd lañ teg ci yow ci sa kaw te pourtant mbokk yi am na lu gën garaaw nekk góor jigéen ñàkk julli moo gën a garaaw nekk góor jigéen ñàkk gën a garaaw nekk góor jigéen ñàkk a woor weeru ko moo gën a garaaw nekk góor jigéen ñàkk a joxe azaka te yor ko moo gën a garaaw nekk góor jigéen te lii nii amul boroom xam-xam bu ci wute ijmaa la bokkaale yàlla bokkaale moo gën a garaaw nekk góor jigéen léegi nag nañ xool ñun suñu société ñaata nit yii ma tudd rek nañ jël rek bokkaale bi dañuy gis ñu ñuy tuddee ay kilifa ay sëriñ ay nangam. jox leen gëdd bu rëy seen wax nga dégg ko nga xam ni kii dafa bokkaale kenn du wax dara nañ wax ci loolu tamit loolu tamit nañ ci wax te loolu mooy principe li tax diine ñëw kàddu yàlla na yëkkati ko jëm ci kaw mooy baatu laa ilaha illa na nekk lu yëkkati ko ci kaw ba pare maanaam nit ñi xam ko ba pare conformé wu ci nañ xeex loolu tamit baax na xeex góor jigéen effectivement baax na xeex sàcc baax na xeex njaaloo baax na xeex ger baax na xeex riba baax na yi yëpp ay xeex yu baax lañu yoo xam ne képp koy def dañ laa war a jàppale waaye li ëpp doole mooy xeex bokkaale mu ëpp doole lépp xeex ñàkk a julli mbir yi dafa may or voilà euh, beneen waxtaan bu may dégg ci loolu mooy ne góor jigéen rek la yàlla mës a alak xeet bi yàlla benn xeet la yàlla mës a alak mooy xeet góor jigéen loolu ak ka sore dëgg loolu képp ku koy wax loolu mooy akbaru dalilin preuve bi gën a mag bi wane ne moom maanaam alquran yittewul ko bokkul ci ay yitteem ndax borom subhanahu wa ta'ala la mën a alagee yéen yàlla ndox kii eh, peuple yéen fi yàlla ndox alayhi salaam seen nit ñi alak waa aad mooy nit yéen yàlla Huud alak waa Samuda mooy nit yéen fi yàlla Saalih alak Firawna ak ñi àndal ah alak ñi nga xamante ne ñooy waa Golba mooy wal muttafikaat mooy waa kër yéen fi yàlla Shuayb mooy nit yéen fi yàlla Shuayb alayhi salaam alak eh, eh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy. ñi nekkoon ci wetu gaa géej ci géej mooy ñu doon napp noonu samedi te ñu soppi leen golo loolu beneen musiba la bu nekk ci di jéem a daganal mariage góor jigéen mooy jàpp ne non comme léegi kii sama jabar la maanaam góor la sama jabar la wala euh, jigéen ñi ne ah kii sama la léegi c'est wala nga am euh, ngay ngay am jëkkër ci biir góor yi subhaanallah maanaam góor bu am jëkkër wala jigéen bu am jabar loolu mooy yaa ngi jéem a daganal loo xam ne dafa xaraam waaw donc yow ñoo ñooña nappkat yooya lañ defoon ba ñu soppi leen ay golo yow yow li def nii nuru na ko wala boog mu gën ko garaaw faf mu gën garaaw sax faf ñooñu tamit yàlla alal na leen yàlla alal ñu baree baree baree baree bare ba ni ne sax waa pour nit yent yàlla Yunus yi alayhi salaam rek rek rek rek rek laa naroon alak alaguma leen ak xeet yent yàlla Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam yow nga ne benn ñenn rek la yàlla musa alak mooy ñi doon def yëfu góor jigéen loolu ñàkk a maandu te da am wala ñàkk a xam ñaari benn la ci soit da ngaa xamul te in kunta la tadri musibatu wa in kunta tadri fal bu dee xamuloo loolu déjà musiba bu rëy la bu garaaw la ab jullit ñàkk xam ne ñii ñëpp alak nañ leen parce que loolu mooy ne moom amul benn relation ak alxuraan mais bu fekkente ne xam nga musiba bi gën na garaaw encore parce que mooy da ngaa xam ne borom sant la lii la wax lii la dogal lii la def ba noppi yow nga nekk ci leneen lu bokk def loolee yal nañu yàlla sàmm. Euh, kon euh, loolu euh, am njàngat la boo xamante ne bu nekk suñu aaya bi la ci wàllu góor jigéen ñu profité ci nag fi wax ci li nga xam ne moom mooy ay insémination artificielle ak yooyu parce que comme que waxoon nañu dinañ ci wax parce que pour bañ ko fàtte dafa am ay ci ay cas de figure ci tënk rek yu mën a dagane ak cas de yoo xam ne du mën a dagane déjà en principe dafa xaraam loolu moom mooy lu leer la mooy nga jël. Euh, nit bon dafa bari dafa am ay ay bari mu mën a amee euh, damay ragal ne buñ ko fi tàmbalee du jeex euh, loolu moom moo tax dañuy daal di yam foofu incha allah su ko defee jotaay bii di ñëw ñu gën koo ñu gën koo leeral incha allah gën mën cee taxaw yaatal ko kon yam foofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala wa sahbihi